Realme 24 Bismillah dal len ak jamm ci xibar mercredi 7 février 2024 mo eh, melne président Macky Sall ginaaw rek ma nga xamé def na discours à la nation boobu rek ba wax na rek dafay rek reporter li nga xamante ne rek moom mooy présidentielle 2024 yi boobu ak léegi toll na ci ñetti fan kenn gisu ko waaye di KS foofu yëkkati ay ko arrêté mu ngay jot boo xamante ne jot na beneen beneen live ma ngay wax ne rek kii di Macky arrêté wuñ ko waaye moom mi di KS ma ngay wax ne kooku di wax ne arrêté wuñ Macky Sall rek fan la teg yooyu la wax mu mel ne kon jamono yi loolu rek moom mooy polémique bi ñuy wax ne rek Macky Sall fii mu toll nii dañ koo arrêté kan moo wax loolu nag muy kaay si foofu di activiste nekk rek fële ca bitim réew di yëkkati ay révélation saa su ne rek di ko teg ci askanu Sénégal di leen informer mu mel ne kon moom moo yëkkati les révélation di wax na daal Macky Sall ñetti fan mu ngi nii kenn gisu ko waaye it kon ma ngay wax ne rek dañoo arrêté ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall.